المصطفى الرحمن أنت Le message du Coran القرآن هاديا لله يا رسول Une production de Radio Sénégal International réalisée présentée en français et en wolof par Mamadou Chérif Diop.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 uswatan xasanatan ila yawmi ddin assalaamu aleykum auditeurs par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala en cette période de Gamou nous sommes ensemble en compagnie de notre sœur Sokhna Salimata Diop pour revisiter les enseignements que l'on peut tirer de la vie, mais surtout de la mort du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la meilleure des créatures de Dieu. mbokk yi ñu dellu sant yàlla subhaanahu wa ta'ala mi nu nu daje ci bis yu tedd bis yu tedd yi àdduna di dellu di bàkk ki gën ci ñi yàlla bind nu delluwaat jël yóbbal ci dundam bu tedd bi waaye tey ci génn àddunaam ami auditeur la sensation de tristesse demeure la même quatorze siècles après la mort de la meilleure des créatures à l'évocation de sa mort une profonde tristesse s'empare des cœurs comme ce fut le cas en ce lundi douzième jour du mois de Rabiul Awal au Gamou de l'an de l'Hégire où lorsque la nouvelle de la mort du prophète alayhi salam se répandit Bukhari raconte que Seydina Omar ibn al-Khattab son sabre menaçant de mort quiconque osera dire que le messager la meilleure des créatures le prophète Muhammad paix et salut sur lui était mort yi fukki xarnu ak ñeent wey na waaye jamono bu ñu fàttali ko génn àdduna yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëg-yëg bi benn lay doon yëg-yëg bi saxaaba yëgoon ci altine fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu ci fukkeel bi at ak benn gannaaw gàddaay gi moom lañuy ñuy yëg xol yi tiis Buxaari nettali mu ni Seydina Umar ibnul Xataab radiallahu anhu salla sayfa mu bucci jaaseem tëkku ni bu ma dégg kenn ku ne yonent bi alayhi salaam génn na àdduna ma tàqatle sa bopp ak sa loos les gens étaient éperdus tout le monde était dans un état second La vie était devenue obscure. Les gens étaient tétanisés. Tout le monde gardait le silence. Seul en ce grand jour, Sayyidina Omar radiallahu anhu s'agitait, menaçant. C'est sur ces entrefaits que Sayyidina Abu Bakr arriva, entra dans la chambre mortuaire où il vit le messager, paix et salut sur lui. enveloppé dans un habit soyeux. Il lui découvrit le visage, l'embrassa et pleura. mbokk yi bis bi nit ñépp a ngi jaaxle nit ñi lu nañ ñu mel ni ñu màndi bët yi lëndëm ñépp a ngi toog ni xerew Omar ibnul Xataab radiallahu anhu rekk moo taxaw di wëndeel jaaseem di tëkku ci loola la seydna abu bakr radiallahu taala anhu yegse dégg xibaar bi tàbbi ci néeg bi ñu tëral yonent bi sallallahu alayhi wa ali mu muri kanam gi foon ka jooy il dit tu plus cher que mes deux parents et tu es aussi pur dans la mort que dans la vie. Je jure par celui qui détient mon âme que Dieu ne t'infligera jamais deux fois les souffrances de la mort. Seyna Abu Bakr ubbi kanamu yonent bi alayhi salaam jooy jooy fonk ni bi abi anta wa ummi tibta xayyan wa mayitan waat naa ni yow laab nga ci sa dund laab nga ci sag dee wallazi nafsi bi yadi laa yajmau llah alayka waat naa ni yàlla du la mosal metiti dee ñaari yoon amal mawtat allati kutibat aleyk faqat mittaha tey nag dee gi nga xam ne moom la yàlla rëdd ci yow rëdd ko ci ku jaar nga ci tey ensuite Abu Bakr radiallahu taala anhu sortit et intima à Seyna Omar l'ordre de s'asseoir mais ce dernier refusa quand les gens virent Seyna Abu Bakr radiallahu anhu ils se détournèrent de Omar se ruèrent vers lui et il leur tint le discours suivant Seyna Aboubakr génn gis Seyna Omar a ngi taxaw mu ni ijlis toogal mu lànk bi ko nit ñi seeni daldi di du mooyu Seyna Omar daw jëm ci Seyna Aboubakr ni Siddiq mu wax ak ñoom ni leen ô gens que ceux d'entre vous qui adorez Muhammad sallallahu alayhi wa ali que Muhammad alayhi est mort quant à ceux d'entre vous qui adorez Dieu subhanahu wa alors là qu'ils sachent que Dieu est vivant et ne mourra jamais Dieu subhanahu wa a bien dit dans le Coran Muhammad n'est qu'un messager comme il y en a eu bien d'autres avant lui est-ce que s'il venait à mourir ou s'il était tué vous retourneriez sur vos pas abandonnant tout ce qu'il a enseigné ceux qui renieront leurs convictions pour renouer avec les pratiques anti-islamiques ne feront aucun tort à Dieu mais Dieu récompensera ceux qui lui sont reconnaissants verset surat ali imrana bokki seyna abubakar wax nga ni discours am bu njëkk gannaaw yonent bi alayhi salaam génn àdduna mu wax ak nit ñi leen amma baadu gaañe man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad koo xam ne ci yéen muhammad daal moo doon yàllaam moom la doon jaamu moom na xam ne yàllaam deena muhammad deena wa man kaana minkum yacbudu allah fa inna allaha xay laa yamuut waaye nag koo xam ne yàlla nga doon jaamu gëm ni muhammad ndawam la xamal ni yàlla moom mu ngiy dund yàlla du dee te moom yàlla waxoon nanu ni wa ma muhammad illa rasulun qad xalat min qablihi rusul waxoon nanu ni muhammad du lenn lu dul samab ndaw ay yeneen ndaw yu ma yebal jiitu woon nañu ko afa in aw qutila inqalabtum ala aqaabikum ndax moom bis bu deewoon wala ñu rey ko yéen dangeen di murta delluwaat ci ceddo gu bërki démb wa man yanqalib ala aqibay falan yadurra allaha shay'a xam leen ni bu loolu xewee képp ku boddi lislaam murta dellu ca ceddo ga mënoo yàqal yàlla dara wa sa yajzi llahu shakirin ànd ak ni yàlla dana fay di bégal ñi wéy di ka jaamu di ka sant suratu ali imran laaye téeméer ak ñeent fukk ak ñeent abdullah ibnu abbas radiallahu taala anhu dira plus tard par Dieu c'est comme si les gens ne savaient pas que Dieu avait révélé ce verset jusqu'à ce que Abu Bakr le récita et tout le monde se le répétait Ibn al-Musayyib raconte que Seyna Omar a rapport raconté avoir senti le sol se dérober sous ses pas et il s'est évanoui parce qu'il était maintenant sûr que le messager de Dieu, la meilleure des créatures, Le prophète Mohammed, paix et sur lui, était bel bien mort après ce que Abu Bakr venait de dire mbokk yi yéen ñu ak nun ci bis bu tedd bi Abdullah ibnu Abbas radiallahu taala anhuma wax na mu ne waat naa ni dafa mel ni nit ñi lam yaalamu anna allaha anzala haazihil aaya nit ñi de dafa mel ni xamuñu ni woon laaya ji mu ngi ci alquran di yàlla wàccee nag xatta talaaha abu bakr ba bi abu bakr waxee nit ñi nag ku nekk di ka di ka ku nekk ngi waxaat laaya ji mu ni moom ibnul musayib seydna umar anhu mu wallahi maa huwa illa samitu aba bakr tala fa aqart xatta taqallani rijlaay mu ne wallaay bi abu bi ma déggee abu bakar wax laay ji samay tànk dafa damm ma daanu ci suuf xëm mu ne ci laa xamee ni nag alimtu anna nabiya sallallahu taala alayhi wa ali qad maat ci laa nangoo nag ni ndekete sunu yonent ba ki gën ci ñi yàlla bind génn na àdduna tey ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal Je vous ai dit la dernière fois que le messager de Dieu, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous avait dit, ma vie est un avantage pour vous et ma mort aussi est un avantage pour vous. Nous allons regarder ces avantages et ces enseignements que nous pouvons tirer de ce départ de la meilleure des créatures le prophète Muhammad paix et salut sur lui mbokk yi suñu jataay bi wees fàttali ko woon nanu lanu ki gën ci ñi yàlla bind wax mu ni woon xayaati xayrun lakkum wa mamaati xayrun lakum sama dund njariñ rekk la di yiw ci yéen waaye sama dee itam njariñ rekk la di nekk yiw ci yéen nga ne lan mooy njariñ yi ñu un des premiers enseignements que nous pourrions tirer de la mort du messager de Dieu le prophète Mohammed paix et salut sur lui est que c'est Dieu seulement et lui seul que le musulman adore le musulman n'adore pas le prophète Mohammed paix et salut sur lui et si les choses sont ainsi un musulman n'adorera personne d'autre. Quelle que soit l'envergure de cet individu, quel que soit le rang qu'un individu peut avoir, le musulman saura que c'est une créature et que seul Dieu subhanahu wa ta'ala est celui qu'on adore mbokk yi jàng bi ñuy njëkk jële fii mooy ah, ndekete jullit ni ko Seydina Abubakar waxe jaamuwul yonent jaamuwul mbindaafon jaamuwul malaaka yàlla dong lay jaam bu fekkee jaamuwuloo yonent bon keneen ku dul yonent waxi noppi du doon baay du doon ndey du doon sëriñ du doon kilifa jullit de yëg ni keneen ku dul yàlla subhaanahu wa taala mbindaafoon nga waaye mu teg la ci daraja bu la yàlla di jox ami auditeur notre devoir envers le messager paix et salut sur lui est de croire en lui de croire en ce qu'il a transmis comme message venant de son Seigneur il a besoin le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que nous suivions et appliquions à tous les instants ses enseignements dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du culte, dans le domaine des relations sociales, dans le domaine des relations politiques, dans le domaine des relations internationales, dans tous les domaines et tous les aspects de notre vie matérielle, morale et spirituelle. sunu wareef daal diggante sunu diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa ali mooy nu gëm ka gëm li mu nu jox mu jóge ci yàlla subhaanahu wa li nu war mooy nu topp li mu nu jàngal di ko topp nag ci saa su nekk ci sunu dund moo xam dafa jëm ci wàllu ibaadaat yi di jaamu yàlla yi julleeg woor waaye moo xam dafa jëm ci suñu jëflante ci suñu diggante ci biir société bi moo xam dafa jëm ci wàllu politique moo xam dafa jëm ci wàllu doxalinu réew yi ci seen diggante domaine boo jël li mu ci jàngale sa wareef mooy nga topp loola yow jullit pour cela ami auditeurs on n'a pas besoin que le messager soit toujours là éternellement ce qu'il nous c'est bien comprendre le sens du mot adorer mafhoum ibada ibada adorer qui veut simplement dire obéir à l'autorité de dès lors c'est à Dieu subhanahu wa que le musulman obéit il fait tout pour suivre ses orientations en agissant conformément à ce qu'il ordonne et en s'abstenant de tout ce qu'il Dans ce cadre, le messager sera le modèle, la référence qui nous indique la manière dont nous devons obéir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et les savants musulmans et les guides religieux ont simplement le devoir de nous enseigner le message de Dieu, paix et salut sur euh, subhanahu wa ta'ala est le modèle du messager de Dieu, paix et salut sur lui, pour que nous puissions suivre le message, mais imiter le messager. mbokk yi yéen ñu tedd ñu ànd ak nun ci bis bu tedd bi ngir nu mën a topp sunu wareef sunu diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa ali soxlawul muy teew saa su nekk soxlawul li nu war nun jullit mooy nu xam lan mooy jaamu baatu jaamu abada lan lay tekki boroom xam-xam yi ni mooy topp ndigal nangu kilifteef bu dee noonu la bon dangay wax ni yàlla subhaanahu wa taala la jullit bi di xam ni moom rekk mooy kilifa moom rekk lay topp ndigalam di bàyyi ay tereem ngir loola mën a sotti nag ci topp ndigal yàlla faw ñu roy ci yonant bi sallallahu ali moom moo nuy wax naka la ñuy toppe yàlla subhanahu wa taala naka lañuy ñuy nekke ci li neex borom bi subhanahu wa taala ci loola nag liggéeyu borom xam-xamu jullit liggéeyu kilifa bi nga xam ni diine ci lay taxaw moom mooy mu leeralal nu li nga xam ne moom la yonant bi sallallahu ali jàngale mu leeralal nun ni mu doon doxale moom ay mbiram ba nun nu mën a topp di roy teg suñu tànk fi mu ko tegoon moom ki ñi gën ci ñi yàlla bind ami auditeurs bien avant sa mort le prophète Mohammed paix et salut sur lui a insisté sur ce point il nous a dit je vous laisse deux choses vous ne dévirez jamais de la voie droite tant que vous vous y agripperez. Ces deux choses, ce sont le livre de Dieu, subhanahu le Coran, et la sunna, la pratique de son prophète, paix et salut sur lui. mbokk yi yonent bi ali njëkk taxaw na ci tomb bi ngir teg nu ci yoon gannaaw moom bu fi nekkatul ñu ñépp dégg nañu ko mu wax mu ne taraktu fiikum am rey bàyyi naa bàyyee naa leen ñaari mbir ñaari mbir yooyu lan tadillu ma tamassaktum bihima li fekk yéen a ngi topp ci ñaar yooyu téye ci ngoy ci ba mu dëgër du ngeen réer mukk du ngeen wàcc mukk yoonu yàlla siraatul mustaqim mu mel ni dañu ko laaj waaw yooyu mooy yan mu ni mooy kitaab allah wa sunnata nabiyihi mu ni téere yàlla bi alquran ji ak sunna yonentab yàlla bi sunna mooy naka la dundee naka la noon defe mbir sàngam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 الأسرار كلها مضمار كنت للأسرار كلها مضمار أيها المختار أنت باب الله يا رسول الله Un autre enseignement que je tire de la mort du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et nu nous devons nu attacher à la pratique culturelle. Nous devons nu engager dans la résolution des problèmes que rencontrent les personnes vulnérables mbokk yi beneen jàngat euh, bu ñuy jële ci génn àdduna yonent sallallahu alayhi wa ali moom mooy takkoo jaamu yàlla li nga xam ne moom la faratal ci julleeg woor waaye taxaw ci ñi nga xam ni seen doole néew na ñi nga xam ni seen kàttan néew na seen pexe néew ñu taxaw ci nan lañuy def ba dëgëral leen ba ñu jot seen cër ci biir askan bi jusqu'au dernier instant de sa vie le messager d'Allah la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a toujours accompli la prière à la mosquée. Les derniers jours, quand il n'avait plus la force de se tenir debout, il y est allé aidé par deux hommes qui le soutenaient. Le dernier jour de sa vie, ne pouvant aller à la mosquée, il a simplement levé le rideau et contemplé les gens qui priait derrière Seyna Abou Bakr Siddiq. Voyant les musulmans unis, il et baissa le rideau. mbokk yi booy xoole yonent bi sallallahu alayhi ali ba bi muy génn àdduna mu ngi sax ci julli ci jàkk ji bis yu mujj yi bi nga xamee ni kàttanam demeetu xam nga waxoon naa ni la da doon sukkandiku ñaari nit ñoo koy lëng ngir mu mën a dem julli ci jàkk ji bis bi nga xamee ni mujj ci fajar mënul dem ci bërëbu jullikaay bi mu yëkkati rido bi xool gaa ñi ñuy julli ci gannaaw Seydina Abu Bakr ni Siddiq xolam mu muuñ wàccee rido bi ainsi amis auditeurs le messager de Dieu la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a respecté le message qu'il a délivré. Il a suivi et appliqué ce message jusqu'à son dernier souffle. Dieu subhanahu wa ta'ala lui a, a dit, croyant, craignez Dieu d'une taqwa véritable, sincère, et ne mourrez qu'en étant des musulmans. bokk yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu jàngale gëm na ko topp na ko jëfe na ko jëfe na ko ba bi mu bi muy génn àdduna yàlla dafa waxoon mu ne yaa ayyuha alladina amanu taqullah xaqa tuqaati yéen ñi gëm yàlla yéen jullit mi ragal leen yàlla dëgg dëggi ragal yàlla wala tamutunna illa wa antum muslimun ngalla waay góorgóorlu leen ba bu dee di ñëw ci yéen na leen fekk ngeen doon ay jullit amis auditeurs mourir en musulman c'est être au moment de la mort un musulman pratiquant sincère en d'autres termes c'est accomplir la prière le jeûne la zakat le pèlerinage tout en respectant l'engagement que nous avons pris quand nous avons professé la shahadatou qu'il n'y a d'autre divinité qu'il n'y a d'autre autorité que Dieu subhanahu wa ta'ala et que le modèle à suivre est le prophète Mohammed paix et salut sur lui au prophète Mohammed Dieu subhanahu a dit adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude la mort te vienne verset 99 surat al yi wala tamutunna illa wa antum muslimun bul dee lu dul jullit nga mooy bul dee lu dul bu dee di ñëw na la fekk yaa ngi julli yaa ngi woor yaa ngi génne asaka soo ko mënee yaa ngi aji màkka soo ko mënee la nga xam ni nag yow yaa jëloon engagement nga ni benn kilifa moo am mooy yàlla benn royukaay moo am mooy yonent bi salaam bu dee di ñëw na la fekk ci loolu yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa ali bu jàllee mu wax ak képp kenn ci nun mu ne waabud rabbaka xatta yaatiyaka alyaqin na nanga jaamu sa borom di julli di woor di jëfe ba dee fekk la ci loolu suratul hijr et voici que son dernier conseil le dernier conseil du prophète Muhammad paix et salut sur lui son ultime testament fut de nous dire prenez soin de la prière prenez de soin de la prière et de toute personne sous votre autorité assalatu assalat wa ma malakat pourquoi la prière la prière parce que c'est la pratique cultuelle qui englobe l'ensemble des autres pratiques, qui fait la synthèse de tous les piliers de l'islam et de tous les piliers de la foi. Et la prière est la pratique avec la shahada dont nul n'est déchargé tant qu'il jouit de la vie et tant qu'il jouit de la raison mbokk mi yonent bi sallallahu alayhi wa ali dénkaane bi mu nu mujj mujj dénk moom mooy assalaatu assalaat ngelawaay fonk leen julli fonk leen julli wama malakat ay maanukum ak lépp loo xam ni lii mu ngi ci seen kilifteef nga ne lu tax waxul beneen ponk lu tax waxul xadar lu tax waxul imaanu bil kitaab lu tax waxul woor lu tax mu ne julli nga ni ndax julli moom mooy jaamu yàlla bi nga xam ni moo ëmb jaamu yépp nga fekk ci biir julli jaamu yàlla yooya boo ko boolee ak uh, jaamu yàlla googu di julli boo ko boolee ak shahaadatu an laa ilaha illallah nga di mooy ñaari ponk yi nga xam ni du wàcc jullit li fekk ruuwam mu ngi daw ci biir yaramam li fekk moom mu ngi ànd ak xelam le deuxième point de cette ultime recommandation concerne les personnes subordonnées les personnes vulnérables respecter cette clause d'aider les personnes faibles est une condition incontournable pour être dans la grâce de Dieu, puisque c'est Dieu subhanahu wa ta'ala lui-même qui dit, soyez miséricordieux et compatissant envers ceux qui vous sont inférieurs et Dieu vous accordera sa miséricorde mbokk yi ñaareelu ndenkaane bu mujj yonent bi alayhi salaam wax ñu ko bi muy waaj a àdduna mooy ñu toppatoo néew gi doole yi loola nag du nu ko matal lu dul fekk nu ngi taxaw sunu kem kàttan pour suqali ñi nga xam ni ñoo néew doole te suqali leen kat kooku sart la charte la ci bu nu bëggee yàlla yërëm nu waxoon na moom ki yàlla yoon min irhamu man ardi yarhamkum man fi sama na ngeen yërëm ñi leen fare suuf ki la gën a néew doole mu ne yërëm ko boo yërëmee ki la fare suuf yar yarhamkum man fi sama yàlla mi la fare kaw dana la yërëm pour être plus concret dans cette orientation le messager nous dira plus tard prenez en compte les faibles car c'est à cause des personnes vulnérables que Dieu vous accorde la subsistance et vous accorde son aide et son secours et sa protection mbokk yi ngir mbir yi gën a leer yonent bi alayhi dañul di bàyyiloo xel néew gi doole yi waxoon na ne ubghuni du'afa na ma dimbalil néew doole yi fa innama turzaqun wa tunsaruun bi du'afaikum ndax na ngeen xam ni yàlla mu ngi leen di dimbali ak di leen wërsëgal te sabab bu ndimbal ak wërsëg bi mooy néew gi doole yi ne ci seen biir Abu Daoud dès lors amis auditeurs célébrez le Mawlid tandis que nu ne respectons pas la prière le jeûne est un jeu simplement hypocrite Dès lors, amis auditeurs, célébrer le Mawlud sans se préoccuper de des moyens d'insertion des personnes handicapées, sans se préoccuper du renforcement des capacités matérielles des personnes pauvres, sans se préoccuper de la prise en charge des malades, est un simple jeu hypocrite qui n'a rien à voir avec l'enseignement de l'islam mbokk yi bu nekkee lii yonent bi alayhi salaam wax jëkk muy génn àdduna leer na bon nga ni bu nuy màggal juddoom te nun julli sax te nun kat joxunu julli ak jaamu yàlla nga ne loola jëfinu naa feq lay doon bu nekkee nu ngi màggal mawlid mu jaral lu ne te ñi feebar bu ñëwee ci loppitaan yi duñu leen dimbal ñi nga xam ni ñu ngi am laago xoolu naka la ñuy def ba seen dund mën a jaar yoon ñi nga xam ni ñu ngi néew doole ñàkk fexe wunu na ñàkk googa dañ ñi nga xam ni boddi nañu leen taxawuñu pour boddi dañ nga ni bon jarul mawlid boobu boobu mawlid mawludu naafeq lay doon yi nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu warsugal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal تسليما التسليم من يد التعظيم يحمل التكريم بصلاة الله يا رسول الله Une autre grande leçon que nous donne la mort du messager de Dieu, la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est que le musulman n'a pas peur de mourir. Parce que d'abord la mort est le passage obligé pour l'obtention de la plénitude des grâces divines éternelles. Cinq jours avant sa mort, le mercredi, le messager de Dieu, paix et salut sur lui, disait dans son discours, il y a un adorateur à qui Dieu a laissé le choix de jouir autant qu'il le voudra de la vie et ou bien de quitter ce monde et d'aller dans l'au-delà. Et ce dernier a choisi la vie de l'au-delà beneen euh, jàngat bi mooy jullit ragalul dee ndax dee faw mu am te sax pour jullit nag dee mooy yoon wi nga xam ne ci lay jote xéewal yi gën a rëy yi sax yi dul dakk mukk ci borom bi subhaanahu wa taala àllarba juróomi fan fekk mu ngi waaj a génn àdduna yonent bi sallallahu alayhi def na discours ci jàkk ji wax gaa yi ni leen inna abdan xayarahu llah an yutiyaw min zahrati dunya maasha wa bayna ma indahu faxtaara ma indahu mu ni leen am na jaam boo xam ni day yàlla tànnaloo naka muy dund ba faw ci àdduna bi mu koy xéewal walla boog mu génn àdduna ñëw ci li ko yàlla dencal fa moom mu ne leen jaam ba day tànn na la ko yàlla dencal cet adorateur en réalité c'est le prophète Mohammed paix et salut sur lui qui préféra la mort à la vie parce qu'il était sûr qu'en ayant vécu en musulman croyant sincère, la mort ne pouvait que lui être bénéfique. Il nous l'a enseigné quand il nous a dit chaque créature sera ressuscitée dans l'état où il a été mort. Le croyant en croyant et l'hypocrite sera ressuscité en tant qu'hypocrite mbokk yi jaam boobu ñu tànn loo yonent bi alayhi salaam la moom dund na nekk jullit bon kay xam na li muy fekki en tant que jullit ndax moom jàngal nanu ko mu ni yubaasu kullu abdin ala ma mata mu ne nu ku nekk li mu doon dund rekk ci lay dekki ci lay dee la mu deeye ca lay dekki mu ne almumin ala imaanihi jullit buy dee ci ngëm lay dee buy dekki day dekki ci ngëm di wax laa ilaha illallah ak di wax alhamdulillah waaye wal munaafiq ala nifaqihi naafiq bi ci naafiqam lay dee beneen riwaaya mu ne wal kaafir ala kufrihi yéeférit ci kéeféram rek lay dekki ëllëg ndax ci lay dee si le croyant a des appréhensions vis-à-vis de la mort c'est par rapport à l'état dans lequel la mort le trouvera et aussi des fois par rapport aux souffrances de l'agonie c'est le sens que nous donnons à ce hadith qudsi où Dieu subhanahu wa ta'ala dit je n'hésite pas quand je décide de faire une chose sauf de retirer l'âme du croyant, car il a horreur de la souffrance de la mort. Et moi, Dieu, j'ai horreur de lui causer le moindre mal. mbokk bu jullit di ragal lenn ak di jaaxle lenn ci dee nga ni du dee ci boppam waaye ci lan la ko dee di fekk ak naka lay jànkonte ak metti ci te pas-pasam du ci des loolu ngay dégg ci ba yàlla waxee ca xadiisul qudsi ba gudd na bokk na ca la mu ci wax mu ne wa ma taraddadtu an shay ana mu ne man yàlla duma ma waaj lenn lu ma bëgg def lu dul jël bakkanu jullit bu ma bëggee jël bakkanu jullit dama koy waajaat mu ne lu tax mu ne yakrahul mawt ndax jullit bi bëggul dee mettiti dee bi wa ana akrahu masaatahu te man yàlla bëgguma lu metti sama jullit bëgguma lu metti ki ma gëm malgré donc que le musulman n'a peur de mourir le messager paix et salut sur lui lui a interdit de souhaiter la mort. Peut-être que la réponse à cette interdiction est dans cette conversation que le messager paix et salut sur lui a eue avec les compagnons qui lui demandèrent quel homme est le meilleur. Il répondit celui qui a vécu longtemps en faisant du bien. Ils lui demandèrent et quel homme est le pire. Il répondit celui qui a vécu longtemps en faisant le mal mbokk yi ànd ak jullit ragalul dee yonent bi alayhi salaam mu ne bu kenn ñaan dee ñu ne lu tax ñu ne xëy na bam ba ka gaañe laajee ni ka ayu naa si xayr kan moo gën ci nit ñi mu ne leen man taala umuruhu wa xasuna amaluhu ki gën ci nit ñi mooy ki gudd fan di jëf-jëf ju rafet ci fanam wu gudd woowu ñu ne ko ayu naasi char kan mooy yées nag ci nit ñi mu ne leen man taala umruhu wa à amaluhu mu ne leen ki yées ci nit ñi mooy ki gudd fan te fanam wu gudd wi mu jeexal ko ci jëf yu bon yu ñaaw ainsi amis auditeurs le musulman comme le messager ne craint pas la mort il craint de n'avoir pas accompli tout le bien dont il est capable dans cette vie terrestre mbokk yi bon danga nga ciy jàngate ni jullit euh, du dee la ragal jullit li mu ragal mooy li mu man ci lu baax lépp dee jëlkate jotul def li mu man ci lu baax nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal na nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal na nu ko defal الأكوان مصطفى الرحمن أنت في الأكوان مصطفى الرحمن جئت بالقرآن هاديا لله يا رسول Le messager est mort donc le lundi 12 du mois de Gamou et c'est le mardi 13 qu'on le lava, qu'on lui fit sa toilette mortuaire, sans bien sûr lui enlever ses vêtements. Ceux qui l'ont lavé sont Abbas, Ali, Al-Fadl, Qassam. Ces deux-là, et Qassam, sont des fils de Sayyidina Abbas, Chakran, qui est un esclave affranchi du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Osama ibn Zayd et Aous ibn Khouaili. Abbas et Qadam le retournaient. Osama et Chakran versaient l'eau sur le corps du messager Et c'est Seyna Ali qui lavait le prophète Mohammed paix et salut sur lui, tandis que Aws le tenait sa poitrine. mbokk yi altine la yonent bi alayhi salaam génn àdduna ñu sang ka talaata ci fukkeeli fan ak ñett ñi ka sang mooy abbas sayiduna ali alfadl ak xasam ñooñu doomu Seyna Abbas lañ Chaqraan kooku jaamu yonent bi la woon bu mu goreel Usaama ibnu Zeyd ak Aws ibnu Xuwayli ñii ñoo sang yonent bi alayhi salaam Abbas ak Xasam ñoom ñoo doon wëlbati yonent bi alayhi salaam Usaama Chaqraan di sotti ndox mi Seydna Ali moo sang yonent bi sallallahu alayhi wa ali fekk Aws moo ko doon téye di ko taf ji dënnam ngir loola mën a sotti on le lava trois fois avec de l'eau contenant du cidre le cidre c'est le jujubier par la suite on l'enveloppa dans trois morceaux blancs en coton ne comportant ni chemise ni turban ñetti yoon lañuy sang yonant bi sallallahu alayhi wa ali boole ci sump ñu ngi kay laxas ci ñetti bu doon sunu waxin nga ni ñetti perkal ñetti morsoy perkaal defaraluñu ko mbubb defaraluñu ko kaala après les gens entrèrent dans la chambre par vagues de dix pour prier individuellement sur le messager de Dieu, la meilleure des créatures, l'imam des imams, paix et salut sur lui, parce que c'est lui l'imam, il n'y avait pas besoin d'un imam. Les premiers à prier furent les anges, puis les membres de son clan puis les muhajiroun, puis les ansars. Les hommes prièrent sur lui. Ensuite, ce sont les femmes et enfin les enfants prièrent sur lui sallallahu alayhi wa ali mbokk yi bi ñu ko defaree tëral ka nit ñi nag di dugg ci néeg bi di julli ku julli rek da ngay julli nga dem amul ilimaan yu jiite ku ñëw julli dem malaaka yee njëkk ñëw gannaaw seydna jibril waa xuraysh ñëw muhaajiroon yi ñëw lansaar ñëw góor ñi ñëw jigéen ñi ñëw xale yi ñëw ñépp julli ku julli dem toute la journée du mardi jusqu'à la fin de la nuit du mercredi les gens n'ont cessé prier sur le prophète Mohammed, paix et ta'ala anha, dira Nous ne sûmes qu'on enterrait le messager d'Allah que quand nous entendîmes le bruit des pelles dans la profondeur de la nuit. mbokk yi bisu talaata bi ak àllarba ba guddi gi di waaj jeex nit ñaa ngi ñëw rekk mbooloo yaa ngi ñëw di julli di dem saydatuna Aïcha mu ni ñun dara xamalunu ni ñu ngay suul yonent bi alayhi salaam lu dul dañu dégg sawtal masaaxi min jawfi layl min laylatil arbia ñu dégg rekk peel yi di yëngu ñu xam ni denc nañu yonant bi sallallahu alayhi wa ali ni ñaan yàlla subhanahu wa taala التسليم من يد التعظيم يحمل التكريم بصلاة الله الله يا رسول الله يا حبيب الله بارك الملوك يا عظيم الجلال من أكوان مصطفى الرحمن أنت في الأكوان مصطفى الرحمن بالقرآن هاديا Le messager est parti, lui que les compagnons ont décrit comme un homme au visage éclatant, au caractère sublime. Il n'était pas un homme gros. Il était quelqu'un d'agréable à regarder, quelqu'un d'élégant. Il était vénérable quand il se taisait et splendide chaque fois qu'il parlait. mbokk yonent wi alayhi salaam dem na moom mi ñi ko jege melal ñu ni boo gisee kanamam mu ngi leer jikkoom mooy bi gën a rafet yi jikko yi ku neexa xool bu noppee nga wekk waaye bu waxee taaru waxam ak jekk waxam yegg ci xol yi vu de loin il est le plus beau de tous le plus splendide des hommes et de près il est le plus affectueux le plus gentil de tous wax nañu ni boo ko seenoon mooy ki gën a rafet waaye bu la jegee nga xam ni jéggi na lépp loo xalaatoon ci taar mooy ki ëpp yërmande mooy ki gënoon a baax ci képp ku mu mënti doon sa parole était suave et vertueuse sans faille ni démesure sa parole était comparable aux perles d'un collier qui se les unes les autres dans un agencement parfait bi alayhi salaam bu waxaan kàddoom dafay neex kàddoom du ëppante du wax lu dul li muy wax day rafet taaru jekk ca na mu gën a rafete mbokk yi nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb nag yàlla nu ko defal ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal international àndoon ak sunuy mbokk soxna Salimata Diop Mouhamad Chérif Diop di leen jox ndaje ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ci ay bisiinu yi nu di ñaan yal na yàlla doon suñu ndimbal yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule topp yàlla gën a jafe yal na ko yàlla yombal mooy yàlla fi gën a yomb yal nañ ci yàlla musal yàlla defal nu mujj gu rafet làq nu fu yàq egul yiir nu ci malaanam suturaam yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu buntu muur ak wërsëg bokki lu nu am yal na nu am yàlla lu nu ñàkkit yal na am yàlla bi jaa i nabil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalaamu aleykum wa rahmatullah wasalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله وصحبه الممدود ذره مقصود ظلك الممدود ذره مقصود أنت يا محمود